waaw danaa la danaa la wax benn xadis. et pourtant suul nañ fa ay nit. dama lay wax benn xadis boo xam ne mi ngi ci Bukhari. muy kiiwu ci Bukhari. mille. am na bu nekk fii benn benn référence. waaw boo ma joxoon léegi nii. su fekkente ne waaw mi ngi noonu mi ngi noonu voilà mi ngi nii référence bi mi ngi nii. mën naa la ko wax kay mi ngi ci Bukhari. waaw waaw muy 3610. waaw waaw ci Bukhari. gis nga 3610. page waaw ci muslim. 1066 1066 voilà. am na ci Ibnu Hanbal. Mhm. sixaax yi. Mhm. sunan Abu Dawud. Mhm. masaanid yi. maajim yi. misaa yi ah mustadrikaat yi. yëpp mu ngi ci. Ibnu Asir indi na ko ba ci Ibnu Taymiya boo demee ci fataawaam yi. le 28 juzu 28. page 495 jàpp 496 mi ngi wax xadis bi di ko commenté mu ne. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدساء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كس اللحية مقصرين الثياب مخلقين الرؤوس يحسنون القيل قيل ويسيئون الفعل يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فأينما التقيتمهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة فإن أردتهم قتلتهم قتل عاد boo demee ci yooyu yëpp référence yooyu yëpp mi ngi ci. dafa ne mi ngi ci Buxaari yi mi ngi ci Muslim yooyu yëpp. Mhm. dafa ne dina ñëw mujj jamono dina ñëw. Mhm. mu ne dina am lii ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw ay jeunes la ñuy doon. Mhm. relativement jeune. sufahaawul ahlaam dañuy nekk ñoo xam ne ñu doyadi. tuuti la ñuy xam rek yaakaar ne xam nañ lépp te dañuy wax. seen wax yëpp ñu ngi koy basé ci waxu ki nga xam ne mooy ki gën mooy ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ay xadiisam waaye dañuy rey waa lislaam yaqtuluuna ahlal islaam wa yada'uuna al awsan ñi ñuy liggéey nag booloo pour xeex waa lislaam ay yéeféer lañu ay jaamukatu xërëm lañu doon moom mooy ñi nga gis ni américain et franc-maçon et consort ànd ak ñoom nga xam ne ay noonu lislaam lañu kassul li ya bo len gisse li gene len di xame moy sen sen sen sikkim da fay gudd مقصرين السياب اي يري تكل يو غاتس لا نيي سول ميغي سي بوخاري موكو اندي اك مسلم يا يي ديغ مون يحسنون القيل بوني واخي رك واخ بي دا خاي رافيت واي كان يسيون القول فعل بوني جفه رك ناني اتيام تي غيس نكو كو تاي te yad'uuna ila kitaabillah dañu woo nit ñi kaay leen ci téere yàlla bi walaysa minhu fi shay te li téere yàlla bi ak ñoom li ñuy def safe de mm-hmm. yaa ngi dégg yaqra'uuna alquran waaw mu ne bu dañuy jàng alquran te loolu ñuy jàng alquran du weesu seen bëli mm-hmm. te nee dañoo mel ni fit fit mm-hmm. buy traversé gibier xam nga fitt du lekk day rey mais du lekk mu ne noonu lañuy mel ci lislaam mhm. pour ñeneen njëriñoo mhm. yàq boobu ñu yàq ci lislaam mhm. yaa ngi dégg mu ne leen mu ne képp koo xamante ne daje naag ñoom nangeen leen rey rey leen am na maanaam yool bu bari te man bu ma fi fekkoon ma dajeeg ñoom dinaa leen rey comme ni ñuy def aat nga xam ne dañ leen di dañ leen di raaf dootuñu fi des waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu cheikh bi ñu lay ziaru di la nuyu Euh, maa ngi jégalu ci turu bi sax ku baax ñu ngi lay ziar di la nuyu xaal euh, soo paree euh, pare nañ pour wax ci bon bonu chiites yi après incha allah léegi man lu ma lay laaj rek dama déggoon ci benn émission nga wax benn xadis muy xadisul xawaarij xadisu xudathaawul asnaan sufahaawul axlaam nga dugal ci xadis bi ñaari baat yoo xam ni danga ko sosol yonente bi kathul lixya nga ne mu ngi ci biir waxu yonente bi ak muqassirina thiyaab dañuy cëkkal seen tubéy kasul lixya boo leen gisee li ngeen leen di xàmmee mooy seen seen seen sikkim bi dafay gudd mm-hmm. muqassirina siyaab ay yëre yu cëkkal yu gàtt la ñuy sol mi ngi ci Buxaari moo ko indi ak muslim <laughs> hmm. léegi indil ñu dañoo bëgg nga indil ñu ci buxaari ak muslim téere sunani alhamdulilah téere yi nga xam dañ koo taalif pour xadis bëgg nañu nga indil ñu fan lañu tuddee ñaar yooyu mu nekk ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku maa ngi la koy sàkku parce que wax bi nga wax la def nañ ci ay tontu nag léegi yow mi ndeyu mbill ji indil ñu ñaar yooyu fan lañ koy fekkee ci buxaari ak muslim salaamaaleykum oustaz Alpha ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ko mag depuis vingt cinquante ans trente ans ngi mbëkkanteeg ñoom di leen nërmeel donc du moom ab ab ab cuuj mooy ñëw di ma jaxase wala leneen kooku mënul nekk parce que du du wóolu sama xam-xam wala leen mais dafa wóor dama wóor ci dëgg gi nga xamante ne ni ci laa nekk maa leen gën a dégg xadis maa leen ko gën a jàng maa leen ko njëkk a jàng du ngeen dem ci ci ci ci jóge seen euh, jaamiaat yi nga xam ne daanaka sax du jaamia ñëw ñëw ñu jàngal leen ay saaga seen utruxa yi ngeen di amu ci benn boo xam ne buy jëriñ lislaam la toujours luy attaqué lislaam di di daaneel lislaam di di di di yàq shaxsiya rasulullah sallallahu alayhi di yàq eh, alquran di yàq nitu yàlla yi rek ngeen di ngeen di ngeen di taxawoo mais fi ngeen may fekk maa ngi leen di xaar ak seeni i ahadis mu zawwara yi nga xamante ne li ci gën a bari ay akazib la fenal ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam te dara du ci dëgg waaw fen suba fen ngoon waaye ñu ngi leen di xaar. <laughs> Ah, macha allah si alfa asalaamaaleykum wa wallahi ki leen koy laaj lottu na pour indi ko ndax dañu ko kaa laaja laaja laaja laaja laaj bay bëgg a dee lottu na pour indi ko waaw lottu na pour indi ko moo tax da ngay reeba tas daal kii day uh, ku ah, bisimilah léegi uh, uh, maa ngi lay xaar yow gëmoo yow xamaloo gëm yow Aboubacar yëfër la Umar yëfër la yaa Aïcha yëfër la yow loolu nga gëm yow loolu nga gëm tasawuf dañoo fonk saxaaba yi gëm saxaaba yi xam nga li ngay def ni yëpp mooy jaxase tasawuf ak ahlu sunna yaa ngi comprendre ñun tasawuf bu ñu waree wax ak ñoom bu leen waree rad dañ leen di rad waaye ànd ak loolu yow lañu bëgg a gëm yow gëmoo tasawuf yow ab chi ay xabiis li nga gëm mooy Aïcha soxla yonente bi ñëpp ay yëfër lañ boobu des Xadija yow loolu nga gëm da nga gëm ne Aboubacar yëfër la Umar yëfër la yow loolu nga gëm da nga gëm ni Qur'an bii nekk suñu loxo wërul da nga gëm ni Qur'an bii nekk suñu loxo wërul abu Aboubacar Umar ñoo ko changé waaw léegi nag li ma lay woo ci xadiis boobu ñëwal ci laa lay ñëwal nga tontu ma ay du ma wax ak ñii dañ laa yónni loolu amul sens xam nga am lu am sens luñ lay laaj tontu ko yow yaa indi sab xadis nga yokk ci ñaari jumla. kasul liya boo leen gisee li ngeen leen di xàmmee mooy seen seen seen sikkim bi dafay gudd. Mm-hmm. muqassirina siyaab ay yëre yu cëkkal yu gàttas la ñuy sol mi ngi ci Buxaari moo indi ak muslim ñaari hmm. ya. jumla yooyu indil ñu fu mu nekk ci Buxaari wala muslim wala ci téere sunani indil ñu fan la lol lol lol lol mooy lu ma laaj li ngay wax yëpp ay waxu kasaw kasaw la asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, xam nga yow moom yow moom dañ la yónni yow man duma wax ak yow parce que seen problème moy vidéo bi nga xam ne émission boobu ma def ak Maodo Faye ak euh, professeur euh, Babacar Samb bu université de Dakar daf leen yëngal parce que plus de trois cent mille quelques ci ay vues am na ko ci euh, internet bi partout dans le monde site yi ñu ngi koy ñu ngi koy teg donc yéen loolu mooy seen problème léegi yéen kay bu ngeen amee xam-xam baaxis un chercheur mooy bu bu fekkente ne ni wax nañu benn wax moom dafay def ay recherche parce que ki wax moom dafa def ay recherche jël ay téere fii téere fee ak yooyu dajale indi yéen da ngeen di def la même chose même loolu ngeen ne wala lii amul ngeen ànd ceeg nag ak objectivité mawdu yi boo xamante ne ni dafay taxaw dafay nekk lu leer mais malheureusement yéen comme yéen lekk rek ngeen man ak sosolaate ak saaga bu amu leen temps wu di def ay recherche scientifique pour comprendre yenn dëgg yi loolu moom moo tax nga seen tayal boobu nag man duma leen ci dimbali yéen yéenay dem ba def loolu ngeen indi ne hadis bi lii la wax yéen bu fekkente ne ñaari baat yooyu rek bu fekkente ne ni rek ñaari baat yooyu rek la ñu wax ak yeneen yi nga xamante ne mi ngi ci hadis bi mais yéen yéen a ngi ko jikkoo te benn jikko rek ci hadis yooyu yëpp ñu wax benn jikko bi rek nit ko bu ko jikko woo rek war naa tiit te yéen boobu ngeen am yéen yéenay kilaabu ahli naar ki kilaabu ahli naar moom mooy xaju safara safara bu amee buy am xaj wahaabiya lay doon loolu xadis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yi ci Buxaari ak yëpp yow moom xamoo waaw a ah, dañ la yónni rek xamoo sa jàng soriwul waaye demal ci sa ustaas yu mag a mag yi na ñu demaat télévision nga xam ne ay million de personnes ñoo ñuy suivre ñu wax ko bu ko defee dina dina dina clair te bu fekkente ne dañoo bëgg munazara encore man moom pare naa man du ma réyal sama pour défendre l'islam waaw bu ko defee rek dinaa awaat parce que am naa yu gën a grawati encore parce que boobu benn lancement la rek te mënu leen ci dara naar bi waa ji dafa ñëw ci naar bi ne ko nag ma jaay kiki 44 laj ko lañ mu jaay ko laj ko kiki 44 bi mu ko ko laajee mu xeeñtu ko rek génn ngelaw def foofu bur yu ne ko jox ma 45 naar bi ku ne ko kon doo dem kon doo doo doo doo doo génne kon lu lu ëpp ëpp ngelaw ah bu segem loolu rek ngeen kii ngelaw lu génn waxantuma laak bu ñu génnee yu mag yi demal ki yow tuuti nga ci lool di ma wax naan ay ñaari xadis ak ñetti xadis benn rek ci boobu rek bu ngeen ko sàlloo rek yéen wahaab yooyu rek ngeen wax xam ne yéen ñii la ñuy wax te yéenay jëf-jëf jooju ñàkk jom. yow sawaay yow bu ñu sonal yow li nga wax dellu nañu gisuñu ko fa yow kay yaa indi fu mu nekk. lii nga wax dellu nañ ci buxaari yi ci muslim ci sunan abi daawuda ci nasaa'i ci imam ahmad ci euh, ci bayhaqi gisuñu fa dara yow kay yaa indi fu mu nekk ñun dellu nañu gisuñu yow indi ñu xadis bi yow fan la nekk nga naan ay ëpp na ay trois cent mille fii ay nangam nangam nangam ay sos kay foo ko waxee nit ñi xool ko ay sos day jaaxal nit ñi nit ñi dañ koy mujj a xool naan waaw kii da koy xool di jaaxle keneen di ko xool di mer loolu rek la nga naan ay am na ay nangam fii lan la soppi sa lool lu mu soppi ci doxalin bi est-ce que tax na ñu rey ahlu sunna yi nga bëggoon est-ce que tax na ñu rey leen indil ma xadis bi fu mu nekk li nga sosal yonente bi waxal fu mu nekk bu amul ah dinañu xam ne yow da ngaa sos mu leer aduna bi yëpp. sa <laughs> alpha kii daal xadisam boobu moom mooy raawi bi waaw moom mii la de moo ko moom rawaahu rawaahu Serif Mbaalo kay ngay wax moom kay moom mii la Serif Mbaalo mii. ku yéema la ku jar a ñaanal la kii ku doy war la. lu jiitu maa ngi lay défier taxaddi la bu bu bu bu dee li ngay wax amul di nga am kersa ak ñi ànd ak yow sa sa sëriñ si comme yéen cuuj yi siq yi tëng yi ñëpp maa ngi leen di défier nañu ma indil benn nusxa muy copie exemplaire u alquran ne nii bii alquranu chia yi la xam nga yéen ñamu yéen ñun ñoo leen ñun yéen yéen ci ñëpp yéen la ñu gën a ñeme yéen yéen salafiya ñu tudd seen boppe salaf te dara du ci dëgg beneen bi moom mooy ñun bu fekkente ne nii dañuy saaga sunu sunu yaay Aïcha kon ñun sunu bopp lañ ko def parce que saaga sa yaay baaxul waaw wa nisaawul mu euh, euh, kii annabi umahatukum yaa ngi dégg ñoom suñu yaay lañu muy Aboubacar muy Umar muy usmaan muy Ali koo ci saaga kenn rek mel na ni yonent bi salaa nga ko def loolu c'est clair boo demee ci suñuy fatawa ay maraaje dañu ko indi boo demee ci sunu téere bi nga xam ne tey moo gën a mag mu bokk ci gën a mag muy bihaarul anwaar nga xam ne ba amoon na ay chataayim ay saaga ay yeneen yu demee noonu yëpp tey sunu borom xam-xam yi dañ ko wedd dindiwaat ko yéen amu leen courage boobu te ñun am nañu courage boobu te man fii ci senegal bokk naa ci fil aalami yi ñu njëkk a jóg pour loolu pour di ko def waaw ba ñu ñëw ñu bari tey ñëw xawaza di fekk sima ci ak ñeneen ak i kilifa donc loolu ndam la yaa ngi dégg ni mu amee ñuy saaga ci ci ci ci ci ci ci ñun ñu ay nekk ay dof ñoo xam ne kenn du leen compter mais ci yéen noonu la amee ñuy saaga ñu mel ni yow cuuj yoo xamante ne ni bëgguñu julli di nekk benn. yaa ngi dégg di di di attaqué ka def yu kenn xam man damaa laa wax ci ay ay saaga saaba ak saaga sunu yaay gi yéen ñëw leen ci ci ci usul yi ak ci furoo yi ñu xeex ci ñu ñu débattre ci loolu moom moo am solo mais amu leen xam-xam boobu un Abu Sufyaan naka lay mën a toogee ku mel ni shérif ne dañuy wax ci lislaam kooku shérif boobu kon du xool boppam ah tur bu nekk dafay wute ak boromam du rëy wala leneen ah demal leen ngeen dem jàngiwaat loolu moo gis nga ñun. soxlawuñu ku ànd ak ñun ci suñu dëgg wala ku ñu ci bàyyi parce que chia gis nga tey chartul awsat chia yi ñoo fa ëpp tey ci ci adat ñoo fa ëpp yaa ngi dégg donc ñoo ëpp influence encore dégg nga Arabie di tey bu daanoo c'est fini kenn dootul waxati wahabiya te ñun dañoo am ay jours na nga ko xool ci arbaïn à chaque fois arbaïn ñaata ay vingt vingt cinq millions de personnes fu ñu daje xool ko ci màggalu Touba yéen lan ngeen am. lu ngeen mën a dajale ay nit ah dem leen lekk seen xaalis te seen kilifa yu mag yi nañu génn nguufaan xaalis bi ñu yor ñu génn ko ñu ñu ñu def ko pour l'islam te ñu génn débat ñu bu ñu bañ a yebal cuuji loolu loolu li ngay wax amul de li ngay wax amul bixaarul anwaar ci boppam xam nga yan nusxa ngeen yor mooy nusxa yi nga xam ni boo leen demee dëkk boo xam ni ragal ngeen fa saaga saxaaba yi ngeen yóbbu nusxa boobu Boleh toge bir biir Iran nu sax yi nga xamni saga yi ci la nu sax yooyu ngeen di etimat nu sax yu saga yi nek ci ngeen di etimat tuqiya ngeen di def yéen shiti dafa bok sen pas-pas tuqiya moy laqatu bo ñewé ci ab dekk nga fenn nga ne li la gëm fekk gëmo lool yéen shi ay lool ngeen gëm shi ay yéen da ngeen ne yaay aisha soxna yonente bi kat la lool ngeen di wax yéen lool ngeen di wax lool sen pas-pas te ni nga jangé ay du wa azwajuhu ummahatukum la waaye wa azwaaju nabi um loolu fa la ko yàlla wax wa azwaajuhu ummahatukum yaa may dégg loolu mooy lu am loolu mooy lu wër yéen da ngeen gëm ni soxna yonente bi yéefar la maanaam nee ngeen daal yonente bi comme takku baaxul yonente bi ci boppam ngeen jam yonente bi ngeen jam ngeen ne Abu Bakar ak Omar ñooy xërumu Quraysh yi loolu ngeen di wax boo la ñëwee fii na sañoo leen ko wax parce que Sénégal boo la fi toogee ne soxna yonente bi yéefar la wala ngeen soxla yonente bi kat la dootoo leen ko defati léegi loolu da ngeen koy nëbb comme que suufi ay dof lañ boo leen ñëwee ngeen nëbb seen lool ngeen ànd suufi yi mun nañ xam ne sax loolu ngeen gëm mais lu leen intéresse rek mooy nañu xeex sunna loolu moo ñoom ñoom loolu waaw léegi nag wiir wiir yi wax mu bihaaru anwaar moo gën a bon ak kaafi yi bu kolay nii téere yu bon a bon la yoon boo fa demee saaga saxaaba yi nga fay fekk ak saaga suñu yaay Aïcha nga fay fekk loolu rek moo fa nekk loolu moo nekk ci ñaari téere yooyu ne yàlla yàlla nga rëbb xërëmu quraysh yi muy aboubacar ak umar wam na tey xima ak seeni doom muy xafsa ak aïcha loolu ngeen di wax te xafsa ak aïcha ay soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ soo bëggee soo ñemee invité ñu télé ñu toog ñu nag yow dootoo ko defaat boo ñu ñemee invité ñu télé organiser émission télé ba xam ñu indil la ay preuve yu leer teg ko ci xam-xam bu leer waaw léegi xadis bi la ñuy wax nga indil ñu xadis bi sa sa sa sa xadis bi sa xadis bi indil ñu fan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddee ci biir xadis bi ne ñooñu dañuy cëkkal di am sikkim indil ñu ko ci Bukhari wala Muslim wala Abu Dawud wala indil ñu ko mu leer loolu lañ soxla. yow xamoo dara da nga war a jàngi. bi yow déggoo ma ne la taadil bi ñu def ci Biharul Anwar kooku ci xawazaat ilmiye la ci Iran. laxa wasaat ayatullahi al uzma marajo al kiram al izam ñoom ñoo jël décision xoolaat yooyu yaa ngi dégg lan la ñuy ragal yow da nga yaakaar ne ak sunu doole ak sunu lépp ci xam-xam ci lépp dinañ ragal kenn ku mel ni comme wahaabi ya comme yéen nga xamante ne ni lu yàlla xam doy na ci yéen ah ñaareel bi tuqiya dafa bokk ci ñun parce que alquran moo ko wax illa an tattaqu minhum tuqaatan wa yuxasirukum allahu nafsahu bu ngeen ragalee ngeen def loolu loolu moom mooy dissimulation kooku dafa bokk li alquran wax dafa farata la nekkul sax sunna ah demal jàngi nga wax sa asaati yi ñu jàngalaat la parce que ñoom sax xamuñu. <laughs> Euh, nit ñi ngeen di teg xel di leen teg dil suufi yi suufi yi nga xam ne seen njàng soriwul waaye seen mooy loolu ngeen di teg dil mais ñun mënoo leen ñu teg dil gis nga nu sax yooyu taadiloo taadil boobu mooy pour boo leen waree dem Afrique daawa ji. wala ngeen war a dem dëkk naar yi nga xam dañoo gëm yonente bi respecté ay soxnaam nu sax yooyu ngeen di yóbbu boo leen demee ci dëkk yam nga xam ne ëpp doole yeneen nu sax yu ñuy saaga moo fa des lu ñuy wax dañ koo xam bu baax a baax nga naan ay xawsa bee toog ay nangam nangam ay ñoo ñoo toog ay kalaam faadi yooyu li nga fi ay kalaam faadi la yaa may dégg xadis bi nag indi ko xadis bi yow yaa ne yonente bi moo ne ñii di cëkkal am sikkim foo leen fekk rey leen indi ñu xadis bi fan la nekk indi ñu xadis boobu fan la ko yonent bi waxee ak fan la nekk ak yan téere lañ koy fekk loolu dong lañ la laaj sa wiir wiir yëpp jaru ko. yow demal jàngi yow Abu Sufyaan xaw ma jaawara xaw demal nga jàngi loolu moom moo gën parce que boo jàngiwul yow danger nga actuellement parce que nit ñi ñu ngi la teg boroom xam-xam gis nga ñëpp daw nañu yaakaar ne yow yaa ma mën a faire face te yow munoo ko yow da tuuti ci man demal nga jàngi. du nee naa la ci charq la awsat donc moyen orient ñi fa ëpp mooy chia yi arabie saoudite mooy bu uratu ta ta ki ta alwahabiya ak takfiriyat salafiya def nañ ko ba ci seen régime moom mooy leen di représenté yaa ngi dégg bariwuñu boo ko jëlee population iran nga xam ne soixante pour cent yëpp chia lañu Iran ñëw quatre vingt quinze pour cent wala quatre vingt dix huit pour cent yëpp di ay chia Syrie ñëw yaa ngi dégg nga boole kook doolul xaliis yëpp du ñu wat du ñu wat du ñu wat benn benn Irak bi ci li fa nekk ci ay chia loolu waru leen tiital yéen wahabiya yi yaa ngi dégg ñaareel bi ci wàllu ta arab ñoo leen gën a dégg arab aussi yaa ngi dégg al arabul asil yaa ngi dégg ci wàllu xam-xam ci wàllu dañu bind ci fànn bind ci ci adab bind ci taarix bind ci ci ci ulum bind ci bind ci islam bind ci ci lépp ci taarix ci lépp yéen lan ngeen bind ah lan ngeen bind ak lan ngeen mën a génne bañ na ko ci ci wàllu ilmu yéen a gën a am taxalluf ci ñëpp yéen wahaabiya yi ak seen réew yi lu ngeen def istidlal bu ngeen def da ngeen ko istidraat dangeen da ngeen ko importé indi waaw ah da ngeen ko importé indi ah ba pare ngeen ñëw tey ci ñoo xamante ne ni dañoo am ay jusuur yàgg taxawu lislaam yàgg taxawu ahlul bayt yàgg taxawu lam ngeen ne wala ñooñu duñu ay dara ci ay ki boole bi ñu jógee naan leen ay furs ay majus ak ay safawi alors que furs ak majus yooyu Buxaari fan la jóge muslim fan la jóge Tirmizi fan la jóge Cheikh Abdul Qadir Jeylaani fan la jóge Farabi fan la jóge Ruumi fan la jóge ah yéen jógu leen fenn lu dul ay jël ay ahlu turux ñoo xamante ne bëgguñu lu dul yàlla ah bëgguñu lu dul yonent bi bëgguñu lu dul alquran bëgguñu lu dul jullit ñi nekk benn ngeen di leen këll këllee di leen di leen def ay yéeféer jël palaasu kii jaawale lan mooy daawa ak lan mooy tabliix naan damay daawa daa yàlla alors que nga war a nekk mu ballix xamoo ki nga war a woo ak ki nga war a xëcc ah ngeen war a yooyu mu war leer ci seen bopp yi leerul ba pare ngeen ñëw nekk ay ay ay valet ay sbir ay agent wu extérieur ñoo xamante ne ni ay anglais la ak i américain ngeen ñëw tey di ñu wax naan ay dama juum ak ay dama def nii ak yu kenn xam <laughs> yaa ngi tiit yaa ngi jaxasoo parce que lu lay laaj bu doo ko indi Fudayk yaa may jaawale ak Abu Sofia Jaawara man du ma Abu Jaawara boo xoolal xoolal ki ngay identifié kan la instant da nga jaxasoo euh, nga ne man xaw ma dara aw ma xam-xam ah waa léegi ñëw man kay nee naa nañu mee ñu débat aw ma xam-xam xaw ma dara man dama la lay laaj tootu ma ci ga teg ju teg ko ci ay firnde léegi yéen à part Iran Irak Lubnaan foofu ngeen occupé. Iran naan ak Syrie ak ak fële euh, Irak keese ngeen bari foofu rek ngeen ëppee foofu ngeen bari mais tey boo demee salafiya bii ngeen di tuddee wahabiya Arabie Saoudite ñu su ëpp ñoom la ñoom daanaka ñëpp ñoom la quatre vingt dix dix neuf pour cent virgule cinq te Arabie Saoudite xam nga nu shaabu Arabie Saoudite population Arabie Saoudite du moroomu Iran nga dem Koweït ñoo fa ëpp. nga dem ordon ñoo fa ëpp nga dem yaman ñoo fa ëpp nga dem fele nu mu euh misra ñoo fa ëpp misra amul benn chiit sax misra daanaka nee amul Shit, misra mooy dëkk boo xam ne amul Shit. muritani ñoo fa ëpp nga dem feneen ci aduna bi yi dund états ñuy dund europe ñëpp salafi yun ñoo fa ëpp salafi yi ñoo salafie yi ñoo fa ëpp dëkk Europe yëpp la laa jullit ñi fa nekk ñëpp salafie la dund ñu ci ëpp quatre vingt ci jullit ñi nekk Europe ay salafie lañ quatre vingt ci jullit ñi nekk États-Unis ay salafie lañ xamuñu ay chiite xamuñu ay tarixa comme adduna bi salafie moo fi ëpp adduna bi yëpp salafie moo fi ëpp. takfiir kay bu dee yéefarloo yéen chiaar yi yéenay yéefarloo yu ñu mag yi yéen. yene takfir yu gëna magi yene fi daq takfir ya xamu ñan ngeen takfir nit ñu sell ñi ngeen takfir yeen ña yalla tag ci alquran ngeen ngeen takfir ngeen ay yéefar lañ muy euh, yaay aisha muy abubakar muy omar muy usman muy hafsa muy soxna yonente bi yépp ne ngeen ay yéefar lañ bam dess khadija bunyi comme yeen bu ñi wax takfir yeen yéen gëna bon ñëpp yeen ñi ngeen lo moy ñu yalla de ñi ñu ngi yeen ñoo ngeen lo yeen ña yonente bi sallallahu alayhi wasallam dencoon daf leen ay soxna ñoo ñooñu ngeen yéefarloo yéen comme yéen ku leen gën a nekk ay takfiir yu yun yéen amul nga naan ay ñun ñu ngi fee ñu ngi fee yow lu ñu leen woo cee tontu débat ñu leen woo mënoo cee ñëw nga taxaw di baaxu naa ñëw la gën a yaa gën dégg arab yaa gën a am xam-xam bisimilah na nagaa yi xajal géew gi nañu ñëpp xajal immaa man nag yow wala immaa yow ak jaawara ñu waxtaan delloo ko ci ay preuve li ngay wax nga indil ko firnde yu leer ñun lu ñuy wax ñu indil ko ay firnde yu leer yow rek la ñuy déglu حجة الله صلوات الله عليهم أجمعين أشهد أشهد أن أن أبا بكر أبو بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة في النار في النار أبرأ أبرأ إلى الله إلى الله وإلى رسوله وإلا رسوله وإلى وإلى رسوله وإلا رسوله لا لا شوف مو وإلا مو وإلا لا لا يعني لا تقول don't say وإلا say وإلى وإلى وإلى وإلى yeah وإلى وإلى الأخ لأنه آه، يعني متربي في بريطانيا وعايش في بريطانيا فلذلك لغة العربية شوية صعبة أشهد أشهد لا أبرأ أبرأ إلى الله إلى الله وإلى وإلى رسوله رسوله <coughs> من من أبي بكر أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان إن شاء الله وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة لعنة الله عليهم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم هنيئا لك هنيئا لك الإيمان والإسلام وثبتك الله وجعلك مع محمد وآله عليه الصلاة والسلام في الجنة إن شاء الله لي لأخيك وأنا أقول بكل جرأة وثقة بالنفس كلهم على هذا المنوال ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية إن ياسر الخبيث لم يأتي بهذا المقطع من نفسه هو مستور في كتبهم هو مكتوبا في امهات عقائدهم هذه عقيده اللي بيعتقد هذا القران كامل وما في قران عندهم كافر هم اللي كفروا اللي يقول اللي يحب الصحابه عندهم كافر ووصلوا الى درجه يقولون اللي ما بيلعن اللي ما يلعن يعني انت ما حبيت ابا بكر ما حبيته انت كافر حتى تلعن ابا بكر وحتى تلعن عثمان ما هو فاضي يسمع هذا الكلام الذي تحتج منه الجبال وتتقطع به الأرض لأنه ينقل من الإيميل لأنه جاء مدد من المهدي إننا سنظل في هذه القناة وفي غيرها ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ندافع